su mbokk téléspectateurs yi nga xam ne nii dañuy safoo di suivre ci seen ACTV ACTV nag du ma taay di ko wax di télé bi nga xam ne nii euh, moo juddu ci communauté sénégalaise bi au niveau de New York euh, rawatina fii nga xam ne nii mooy Harlem ñu di ko woowee euh, Little Sénégal donc di télé bi nga xam ne nii Afro Bonjour à tous et à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité de nous rejoindre sur senego.com, Senego TV. Euh, tey nag ñoo ngi fii euh, fi nga xam ne moo nekk New York particulièrement Harlem City. Mm-hmm. Euh, fekk fi Modou Baye Fall Ndao di animateur di koo xam ne ku am taxawaay la ci rajo bi nga xam ne moo nekk fii ci New York. Modou Baye Fall maa ngi lay nuyu. maa lay fay na di leen wax welcome Senego à mm-hmm. New York. ok mën nañ xam kan mooy Modou Baye Fall waaw Modou Baye Fall Ndao de moom ab euh, comme ni ko tur di wuyoo rek ab Baye Fall la bu jógee Sénégal di doomu sénégalais ñëw ci New York di xoslu di moodu moodu mais yàlla dogal aussi tamit ñu am passion ci wàllum communication euh, yàlla dugal ñu ñu dem ba dugg ci wàllum communication bi euh, ubbi fii. Euh, benn rajo bu tudd Dóor waar rek ah donc di ci def ay émission ci benn rajo bu tudd WPAT yàlla def aussi tamit fan yi euh, ñu ubbi benn télé euh, defe naa aussi tamit di ci def ay waxtaan yu am solo lépp ci jëm ci dundal communication fii sénégalais yi au niveau des États-Unis man nañ xam ci rajo bi nan la démarré nga xëy dugg ci rajo ndax da nga def da nga mas def rajo Sénégal wala da nga ñëw New York voilà. waaw bon rajo nag du ma ni def naa ko Sénégal mais dama ko li ñuy français di wax dama ko titillé donc daan naa fréquenté Sud FM ak DJ Amis mais mosuma fa def émission euh, mos naa def nag RMD benn cinq minutes animation temps bi fa Pape Cheikh Diallo nekkee c'était juste benn petit mais après ça j'ai laissé tombe mais nag bi ma ñëwee ba États-Unis xam nga rek lu yàlla def si yow muy passion wala bokk muy benn don daf dafa dem ba. mujj ma sonal donc ci laa ni am idée euh, ni naa def rajo rajo boo xam ne bon fekk naa fi aussi tamit sama mag yu ci mel ni ay Dame Babou yu ci mel ne ay Alain ak yeneen mag yoo xam ne ñu ngi fi euh, donc ma ni naa ñëw def euh, rajo comme ñoom donc bi ma defee rajo aussi tamit mu nekk touche boo xam ne nii c'est pour la jeunesse quoi donc nekk na rajo boo xam ne nii tax na côté jeunes yi nga xam ne nii il ils étaient pas intéressés par rajo yi ñoom ñëpp ñu obligé di intéressé wu ci ci rajo yi. donc daanaka fii laa gën a appliqué métier rajo boobu que Sénégal quoi. ci rajo bi euh, nan la demee parce que rajo comme Sénégal xam na ne day doon benn affaire rek bu ñu teg euh, non day doon benn bureau bu ñu installé. Mhm. am autorisation tey. Mhm. doom nekk doomu sénégalais yor fi rajo ci yenn ci yenn circonstances ngeen amoo rajo boobu fii ci New York. waaw fii nag euh, rajo yi boo dee xool ay chinois sax ñoo ko moom donc benn studio la mais ñoom dañuy loué heure yi. donc ils ont tout leur studio matériel et tout ça donc nit ñi euh, yeneen nationalité yi dañuy dem foofu nga loué fa heure maanaam mun nga fa dem nga xool benn jour wala deux jours nga jël fa deux heures de temps wala trois heures de temps moo xam journée bi wala guddi gi donc rajo bi mi ngi tudd WPAT mi ngi nekk downtown donc boo dee xool lundi ba dimanche euh, guddi gi yëpp sénégalais yi ñoo fa euh, am ay heure donc da fa am ay rajo Mouride rajo Tidiane. Euh, association bi am na tamit yeneen sénégalais rajo Modou international bu aussi ñooñu ñëpp am nañ fa ay heure ku ci mel ne El Ndaw donc noonu lañ ñëwee jël fa heure tey jii ci jour lënd bi lay doon sax ci guddi gi ci kanam tuuti donc am nañ fa heure euh, rajo donc noonu lay demee mu nekk rendez boo xam ne daanaka chaque semaine la ak heure bi nga xam ne nii euh, donc sénégalais yi dañuy toog di la xaar moo xam ñi nekk ci taxi yi moo xam ñi nekk seen kër donc loo xam ça fait 30 ans communauté bi daanaka mun na ni rajo boobu mooy seen seul moyen de communication à part social média yi est-ce que sénégalais yi ñoo ngi bàyyi xel rajo boobu ngeen ci ak yenn message ngeen ci jàllale ba sénégalais yi di leen mën a déglu. waaw rajo bu am doole la ci cinquante état yi parce que moo di moom lañ xam daanaka boo demee Sénégal ni ngay waxee RFM wala nga wax Sud FM donc rajo boobu daanaka noonu la mel ci communauté sénégalaise bi donc lundi ba dimanche daanaka show yu bëri dafay am communauté tidiane bi am nañ fa show waa Mika yi Murid yi am nañ fa show am na tamit yeneen genre sénégalais yoo xam ne ñu ngi fay animé ay. show donc tous les jours ak ci heure yëpp donc nekk na euh, daanaka guddi bu xasee jot que mu nekk taximaan yi sénégalais yi moodu moodu yi suñu papa yi suñu yaay yi donc guddi gi bu xasee jot daanaka nit ñëpp dañuy scotché ci euh, rajo boobu nga xam ni mooy WPAT 90 yi. Mm-hmm. d'accord gannaaw rajo xam nga ne rajo dafa am benn lu mu war a mën a def ci communauté sénégalaise. comme ki mm-hmm. nga nekkee fii ci New York. Mm-hmm. Euh, peut-être ba tey mën naa ne ndax message yi ngeen ciy jàllale exemple. jan genre thème ngeen di jàllale ba suñu communauté sénégalaise bi nga xam ne ñoo nekk biir New York mën ci bàyyi xel ñoom aussi mën ci gis seen bopp. donc c'est c'est différent maanaam ku nekk ak sa programme tey jii moo jëlee exemple like rajo Mouride. donc lépp lu aju ci affaire MICA mooy organisation euh, Mouride bi nekk fii à New York donc seen programme yëpp ci loolu lay basé wu seen événement seeni i cotisation ak ay waxtaanu diine même chose que rajo Tidiane donc boo jëlee rajo association sénégalais yi donc programme yi jëm ci association sénégalais bi lay wax donc boo jëlee indépendant yu mel ne man ko ci mel ne Dóor waar man je traite de tout man damay def politique damay def musique donc tous les musiciens yi ñëw fii am programme pratiquement ñoom ñëpp dañuy jaar ci rajo bi que mu nekk Waly Pape Diouf ak artistes yi fi ñëw yëpp suñu amee événement yu ñu war a jouer fii donc dañuy ñëw à la rajo fa la ñuy defee seen promotion euh, événement donc euh, yeneen sénégalais aussi tamit di fi ñëw politiciens yi politicien yi bu ñëwee par exemple législatif yi bu ñëwee ñoom ñëpp da leen gis dañuy jënd ay temps d'antenne pour def. ay émission def naa émission ak pratiquement politiciens yu bëri Pape Diop maire de Dakar Bougane Gueye Dany ak euh, Gakou ak yeneen i politiciens donc bu politique bi xewee gan yi bu ñëwee euh, dañ leen di dalal ci suñu rajo yi doon nag euh, muy nekk ministre yi mu nekk tamit entrepreneurs yi wala gars yi xam ne dañ fi ñëw pour jaay seen produit donc suñu ñëwee rajo bi mooy moyen de communication bu leen di permettre ñu mën a am accès ci sénégalais parce que sénégalais dañ koy dañ koy déglu rajo yi am doole la même ñi fi ñëw pour def seen business maanaam bépp sénégalais bu ñëw fii di def dara wala bépp sénégalais bu nekk fii si dëkk bi organiser événement pour que événement bi mën a dox mën a siiw te es dem ci rajo yi euh, wax ko fa donc que mu nekk sama rajo wala sama euh, yeneen moroom naataangoo yi def euh, rajo daanaka. gars yi dañuy utiliser créneau boobu noonu pour mën a euh, jaay seeni événement donc fii moom lépp la def man sama show daanaka lépp la dañuy def sport dañuy def politique dañuy def musique dañuy def aussi tamit ay thèmes de société da ngay am aussi tamit ay invité lu ci mel ni ay consul ak yenn autorités yi nga xam ne nii ñoo nekk dëkk bi des fois aussi tamit dañuy def ay ay émissions religieuses ak yenn imam yu nekk fii bu koor gi ñëwee euh, il m'arrive aussi tamit xam nga de faire info donc présenter info comme ni ñu koy defee au niveau RFM ak Zik FM donc yooyu yëpp euh, on fait des choses daal pour que sénégalais yi di sentir que ñoom am nañ rajo vraiment ci communauté bi. après 30 ans ngeen am rajo tey ngeen xëy euh, financer benn projet boo xam ne télévision lay doon. mais mhm. online télévision. Mhm. tey ini boobu wala initiative boobu naka la ñëwee ci yéen. Mhm. ngeen ko gën ko améliorer def ko télévision. voilà donc boo dee xool 30 si ginnaaw man diir bi taxuma fi yàgg noonu tellement mais rajo WPT bi mun naa ni def na 30 ans boo dee xool première émission association bi ay rajo Murit euh, yàgg nañ donc man pratiquement 7 ans rek laa def si rajo bi mais xam nga àdduna challenge la. xam nga aussi tamit mun loo ñëw nga ñëw fekk sa ay papa wala ay nijaay ñuy def benn affaire nga ñëw nga def même chose il faut ñu créer leneen te dan nekk ci troisième millénaire donc. ku ne xam na sociaux médias yi sites yi et tout ça liggéey bi nga xam ne nii ñi ngi koy def pour que sénégalais yi di mën a am accès ci information heure bu nekk ak moment bu nekk donc si la idée bi commencé germer que d'accord def rajo baax na mais rajo bi su ma ko defee ci diiru cinq ans wala quatre ans il faut que mu nekk télé donc rajo la mais il faut que mu nekk télé donc laa commencé woon am idée boobu dans la tête donc ma ñëw di ci waxtaan ak mooy sama xarit bu ma la présenté Serigne Mbacke Ndiaye nga xam ne mooy PDG. afrocentrique tombe yàlla dogal aussi tamit ñu jël espace bi ñu fekk nga xam ne nii euh, cadre la boo xam ne dañ ko def pour sénégalais yi ci lépp loo xam ne nii dañ ko soxla gan yi ñi fi nekk ñi bëgg liggéey ñu bëgg fun dëkk ñu bëgg billet avion ba ci immigration yi tout sax ñu créer cadre bi def ko mais ñu ni pourquoi pas ñu def fii aussi tamit studio daan nañ ko essayer nag di ko def ci suñ kër yi ah ci néeg yu ndaw wala salon yu ndaw ñu def ci ay émission mu nekk ay émission yoo xam ne c'est suivi ci cinquante états yi mais dañ ni woon nan ñaan yàlla ba yàlla may ñu espace ban mën ko jël ñu réfectionné ko mooy next do bi fii ñu toog nii mooy régie bi beneen bi fa lañ def studio donc fan yi lañ ko tàmbali petit à petit ñi ngi koy def donc pour permettre sénégalais yi au lieu que ñuy dem ay guddi di louer ay benn heure wala deux heures de temps là dinañ am benn cadre boo xam ne ni dina mën di émettre 7 jours sur 7 24 heures sur 24 dinañ fi mën a def bépp programme bu nu bëgg et dinañ mën permettre sénégalais yi. ñu def seen i événement et puis dinañ mën permettre tous les sénégalais yi nga xam ne nii dañu am talent ci wàllu communication moo xam ay animateur wala moo xam ay journaliste on leur offre ce cadre la pour que ñoom ñu mën a permettre ñëw def fi seen i émission wane aussi talent bi nekk et dina permettre aussi tamit communauté sénégalais bi ñu am une moyen une télévision qui va permettre Euh, vraiment ñu def ay programme yoo xam ne nii donc ñu bëri dinañ ko mën a utiliser. Mm-hmm. macha allah di lu am solo à part loolu ndax euh, tey def fi émission day doon lu doon gratuite wala dañ ko bàyyi comme may ko communauté sénégalaise bi. bon pour l' instant dañ ko dañ ko bàyyi noonu pour l' instant on le fait gratuite donc nit ki nag lépp lu muy liggéey daf ci bëgg dara daf ci bëgg xaalis mais comme benn philosophe li muy wax rek dañuy rien de grand ne se construit la passion pour l' instant dañuy dem ak passion. mooy ñëw euh, teg cadre bi proposer Sénégalais yi ay programme xool aussi tamit tàllal suñu loxo tous les gens yoo xam ne ils ont envie de s'exprimer de fair des émissions ñu jox leen seen chance ñu essayer ay émissions mais peut-être bu ñu demee ba ci biir ba télévision bi jël forme am doole dinañ ko gën a structurer wut ay sponsor à partir de moment peut-être euh, mbiru koppar yi bu boobaa dina mën a dugg. à part ça ban nga am pour lancer ko la communauté message bi mooy que ñu ñëw gën ci jàpp gën a solidaire parce que ku ne xam na ni immigration bi woon avant ak bi léegi dafa dafa wute donc àdduna bi dafa gën a metti Amérique gën neexoon avant xëy peut-être léegi la difficulté yi gën a bëri d'où l'importance nit ñi gën a booloo parce que ñoo fait la force parce que boo gisee fii aux États-Unis euh, communauté yi nga xam ne nii ñoo am doole. mooy communauté yi manko que ce soit espagnol yi que ce soit bangladesh yi wala affaire demee noonu seen manko seen doole moo tax ñu am doole donc appel bi mooy euh, wax sénégalais yi de tout bord que ce soit la jeunesse mag ñi et tout ça lekk bi nga xam ne nii suñ papa yeeg suñ yaay yi banoon ko parce que boo gisee léegi immigration bi léegi ah, c'est à moitié jeune léegi da ngay gis euh, jeunes yoo xam ne nii seen papa yi ñoo leen fi indi wala seen yaay yi am ñoo xam ne nii fii lañ juddoo xam nga bu ñu demee ba am ay jeune de vingt cinq ans de trente ans ça veut dire immigration sénégalaise mi ngi bëgg yàgg au niveau des États-Unis donc boole ceeg immigration clandestine bi léegi sénégalais ñi ngi bëttee Brésil Argentine léegi ñi ngi bëri ci dëkk bi macha allah yooyu yëpp mu nekk ay données yoo xam ne nii war na permettre communauté sénégalaise bi ñu jël conscience gën a organiser wu pour que sénégalais yi am benn communité forte au niveau des États-Unis parce que fii moom mbooloo rek mooy tax. américains yi respecté la donc communauté bi la gën a am doole moom la américains yi gën a respecté moom la américains yi gën a jox tër sinon rek di leen remercier aussi tamit waa Sénégal ci déplacement bi ngeen def nii parce que yombul ñu ngi leen ci remercier di leen wax encore welcome di def coucou rek xam nga waa Sénégal yi nga xam ne peut-être à travers seen émission bi wala seen vidéo bi dinañu reconnaître muy que sama famille samay mbokk ak ñëpp ñi nga xam ne ni ils sauront me à travers émission euh, bi ñuy def di leen remercier aussi di leen ñaanal li nga xam ne nii moo leen fi yëkkati ngeen réaliser ko euh, di leen remercier encore ci déplacement aussi di profiter aussi tamit ci interview bi ah ci tribune bi di lancer un message à tout journaliste animateur en technicien caméraman euh, ñu jël contact ak ñun su fekkee ne ñu ngi ci dëkk bi fii États-Unis wala sax ñu nekk Sénégal wala fu mu mënti nekk. ah donc mun na jël contact ak ACTV donc suñ adresse yomb na xam boo ñëwee 116 7 aveni loolu yomb na xam boo déggee 116 mooy.